I, dama ñëwoon fii tey doon animer benn stage technique mais stage de découverte pour la Metsmar Metsmar, mooy méthode de défense et de sécurité martial art euh, li muy wund ci wolof mooy jumtukaay yi nga xamante ni ak ngànnaay yi ngay am pour mën a aar ak défendre sa base bi ak source bi mooy à travers les techniques des arts martiaux ñii nga xamante ni ñoo nekk

discipline bu bess la euh, waaye nak technique ya du lu s'il est vrai qu'on ne peut pas réinventer la roue à travers les techniques de de de self de de d'arts martiaux ci la basé wu pour mën a def autodéfense ndax dañu gis ci jamono nit ñi dañ koy demander bu baax parce que xam nga comme vous le savez euh, l'art martial en tant que art martial da koy mën bëgg am passion bi ak amour bi nga mën def 10 ans de pratique wala 15 ans lolou xam nga boko ko bëggul mënoo taxaw di di di yàgg lu yag lolou ñaarel bi moy demande bi dañu gis ni légui agression bi dafa gëna bari donc les techniques d'autodéfense bo dee partout hein du du Afrique rek bo demee tay ji Europe fo dem ci monde bi les techniques d'autodéfense dañ ko solliciter bu baax a baax. ñun it dañ ñoo saytu won bi ni dee pratiquer yenen discipline martiale yi. comme le karaté wala bokk euh, l'aïkido le taekwondo le kung fu wala leneen dañ la ci saytu ba noppi di la ko jàngal di seet fan la dóor bay jóge pour pare une technique nan lañ koy defee. moom ay koppar dëgg la laaj ndax ay moyens xam nga mooy mooy mooy tukkiloo nit euh, nii rek Mauritanie déjà ñi ñu fay xaar mais déjà yoon yoon wu nu jaar sax amaguñ ko déjà.